Assalamualaikum. yeen mbokku internet yi suivre TV nuyu nañ leen bëgg nañ leen jaajëfal nañ leen waaw comme niñ koy defé sa su ne di leen ci jox li nga xamantene mom moy bilan mbeuri manam ci saison bi ñu genn di saison 2020-2021. tay nak kiñ vingt di indil tey touba kouta touba kouta boru indil touba kouta borom jamono ndeysaan nar leen jox nombre de sortie yi mu def nombre de finale yi mu jël ak nombre de finale yi mu touba kouta def na 18 sorti. sorties jël na 8 drapeaux ñak na 3 final ci biir vidéo bi ñu ñëw yaatal leen 18 sorties yi huit finales yeeg huit drapeaux yeeg trois finales yi ni mu demee. huit drapeaux yi Kouta jël ni la Touba Kouta jël na dëkk bu ñu wax Touba Kouta ci kaw Mburoog Ndambe Touba Kouta jël na jël na fi nga xamantene mo moy kawon ci kaw Mohamed Singi Touba Kouta jël na lamb ñaning ci kaw ngañ seen bu njaga ñaaw Kouta jël na luli ci kaw jëgëm jëgëm Toubacouta jël na Ndundox ci kaw capitaine bu Njongoloor Toubacouta jël na wala Toubacouta jël na lambu Ndangaan ci kaw Ablaye Ndiaye bu Zaal caatu Robert Toubacouta jël na fi nga xamante ne moom mooy Pout ci kaw Boy Sadio Toubacouta jël na fi nga xamante ne moom mooy Gandiaye ci kaw Soosox Papongaan ñàkk na aussi lu tollook ñetti final final yi mu ñàkk nii la demee fi nga xamante ne moom mooy kawoon Soosox Papongaan moo ko fa daanoon fatik final ba mu ñak faran ndiagu or moko fa daanoon ngëriñ sereen ñak na fa final sen kumpa mom moko fa daan leen di wax touba Toubacouta loolu mooy moy parcoursam ran wala bilan ci saison 2020 2021 ñukoy féliciter mom moom salum borom jamono diko encourager diko wax bonne continuation mu gën gor góorgóorlu champion la mom loy wër ci mbër bo démé fekk ko si mom ca dugub ba ca yëngal ba ca bëre ba ndaysan ca gabari ba ak ba ca wax ja ca ngaamu ba ndeysaan sama doom nday la moo tax ma ñeme koo wax loolu waaw kon noonu la fa demee Toubacouta ngi noonu buuru Saalum borom jamono doomu doomu kër musa an ak campement ngee xoox dundal waaw champion amal jamu. way champion bu mag baa ngi noonu di bëgge gaay yi ñoom kas ñoom Cheikh hmm, ñoom Maktar waaw képp kuy bëgge Toubacouta rek yaa ngi si biir ah waaw kon zulum zalam yoxos dara du xew waaw gars yi bu leen fàttee abonné nag ci Lamyn TV lay xewee beneen jour ñu dikkaat ak yéen ak beneen champion ak beneen bilan muy kontaan si yéen bu baax a baax a baax